fu mu jóge c'est une question alors maa ngi ñëwaat ci yow tuuti ma may la nga naan café naan ndox <laughs> mais en attendant Mansour euh, suñu déggee argument wu Ousseynou lii hmm. ndax mën nañoo euh, fi mu toll nii wax ne dute un peu ci fiabilité wu parrainage beeg ni muy doxee bon vendredi ba toog naa <coughs> ma wax moom daanaka li mu wax parce que ñun <coughs> on a sur le travail du conseil constitutionnel man vendredi dama fa jaar déjà boo ñëwee voilà euh, journalistes yi ci biti la ñuy taxaw mhm. la cuisine interne du CC ñun amuñ ci benn maîtrise mhm. benn maîtrise dañ ci amul te loolu du dooleel démocratie mhm. normalement conseil constitutionnel ak élection yi ñu jëm Mm-hmm. parce que enjeu bi c'est pas l'ordre de dépôt l'ordre de passage l'enjeu c'est le véritablement le contrôle mm-hmm. du parrainage mais qu'est-ce qui se passe c'est le mandataire qui vient mooy déposer ni ñu ma ko expliquer il présente la clé et les autres documents mm-hmm. ñu dugal ko ci benn écran on te à partir de zéro jusqu'à cent le nombre des parrains qui sont validés rejetés région yi nga perte et cetera et cetera nombre de doublons interne comme nombre de doublons externes. Mm -hmm. juste préciser que ne doublon interne mooy par exemple li Serigne indi wala Ousseynou li li mu indi. Mhm. externe mooy dama ko indi Ndiasse indi ko Ousmane Touré indi ko yow nga indi ko. Mhm. te li gën a sonal gars yi mooy le doublon externe. Mhm. mooy leen gën a sonal mooy li nga xamante ne maîtriser wuñ ko ba pare beneen bi moi je pense que loolu rôle des journalistes c'est un rôle de vigie. de la société civile aussi tamit et cetera et cetera et cetera mais pourquoi pas tey ñu ubbi conseil constitutionnel ba nga xamante ne moom lii muy tawat. ay inquiétudes ay inquiétudes la ba pare c'est des inquiétudes qui sont totalement normales en fait c'est légitime c'est normal mm-hmm. parce que ay nit mënuñu parce que tey man j'ai l'habitude de dire que ni le parrainage c'est le CMC qui l'a fait c'est-à-dire c'est le cercle militant convaincu moo koy def mais parce que amuñu problème boobu dañu wax dëgg quoi mais ku mën a ñëw def partage de boole la ci loo xamante ne bokkoo ci woon nga nekk député nekk maire mais kooku bu jógee pour parrainage mais war tax mën a am problème. nañ waxante dëgg ko c'est-à-dire Bassirou Diomaye Faye je pense qu'il a fait sur 14 régions il a fait les 10 régions. Mm-hmm. mais warul mën a am problème mu borne supérieure comme ay borne inférieure c'est-à-dire les 44 000. Mm-hmm. et les 50 et les je pense c'est ça. déposé 15 régions. 15 régions. 15 c'est-à-dire 14 régions. waaw et plus la diaspora. plus la diaspora boo seetloo ci candidat yi ñi ko fi déposé. Hmm. dañ leen di compter bëriwul. non loolu moom bu nekkee loolu ngeen loolu ngeen déposé parce que man information yi ma amoon mooy vous avez fait les 10 régions. Hmm. non c'est-à-dire quand tu déposes. tu ah. sélectionnes say régions su la neexee nga yem euh, yaa xam. l'essentiel mais on a couvert. waaw les 14 régions et la diaspora. Hmm. léegi nag dans la validation on nous a dit qu'on a validé 9 man dix ans laa amoon. waaw bon man li ma gis. on a validé neuf régions. et le minimum de régions à valider c' est sept régions. c' est sept donc on a validé les neuf. waaw minimum. mais léegi problème bi. ah non excuse-moi. non allez allez allez non non c'est bien. problème bi mooy. Mhm. doublon yi. Mhm. mën nga ko dabb. mais problème bi c' est les douze mille trois cent soixante quinze. parce que bu ñu rejeté mënatoo ko dabb. doublon mën nga ko dabu. mais rejet moom mënoo mais rejet mënoo ko. d'accord ce qui veut dire quoi li suñu experts yi sous sous-entendre mooy notre fichier à été manipulé. parce que xam nga li tax. dama lay jox pour ku tàmm di liggéey fichier Excel. <coughs> y a ce qu'on appelle une méthode d'incrémentation. Oui. mooy par exemple ligne bi su nekkee cent lignes. Mhm. cent lignes colonnes yëpp nga remplir ko man su ma bëggee changer ndoo cent lignes yëpp damay dugal benn ligne rek. incrémenté mooy say donc lignes yi ci topp yëpp day changé donc dafa am ay lignes yoo xamante ni biñ lañ ko joxee suñu expert dañu gis ni lii incrémentation la mooy maanaam dañuy dugal turu ji bi rek incrémenté donc ay jibi jibi jibi jibi jibi rek a ciy nekk et finalement doublon lay lay indi nu andiw doublon rejet te cartographie rejet yi ñett la Dakar Ziguinchor et Sédhiou mhm. pour dakaar problème yi fi ñu fi ñu ko indi mooy discriminant waaw c'est-à-dire que même même c'est-à-dire xam nga souvent dama ko bind keroog nit ne ma non même même cette manipulation n'est pas intelligente c'est pas intelligente mais lu suivre na benn logique ñoom à la base ñi ko def dañu am benn logique bu ñu suivre parce que quand tu vises Dakar Ziguinchor et Sédhiou am nga xam nga xam nga bu baax fi nga viser parce que xam nga ñoom non c'est pas choix anodin parce que xool nañ gis ni région yooyu ñaata parrain lañ fa yóbbu donc ñu di ñu jël ñetti région yi région région ni non non non ñooy Sénégal non pas tant xam nga boo déposé région bu nekk dañuy gis ñaata nga fa joxe di nga am raison région yooyu privilégié dina am région yooyu dul privilégié léegi nag Dakar erreur yi dañ ko andi ci euh, discriminant bi mooy euh, numéro de kii bi date d'expiration carte d'identité bi soo demee Ziguinchor problème yi ci nom de famille yi la nekk boo demee Sédhiou ci erreur ci numéro d' identification nationale bi la. ci nekk ak bosam donc maanaam experts yi génne na sax ba génne cartographie erreur yi yiñ ne ñun ñun ñoo ko def te ñun bi ñu comparer nee naa la tur yi ñu joxe ak ñun tur yi ñu joxe sax bokkul. bokkul mas ñu bàyyi la ko. donc man daal <laughs> suspicion bi yëpp li ko waral. mooy lan mooy le le conseil constitutionnel quand même est enveloppé véritablement. de de de de comment on appelle encore maanaam ñoom li ñuy def à l'intérieur mhm. ñi war a mën a assister contrôler mhm. participer à la vérification ils sont dehors mooy les journalistes mhm. te loolu warul mën a nekk aujourd'hui mais un mandataire peut sortir manipuler le journaliste oui parce que moom la version moom moo am la version officielle alors que ñun dans le dans les dans les processus par exemple euh, électoraux ñun li ñuy gis par exemple au dépouillement il y a des journalistes qui assistent. dans les pays normaux. loolu mooy dëgg. mais c' est très dommage que élection bu toll nii ak envergure bi nga xamante ni bi moom la jël ak intérêt bi muy suscité que conseil constitutionnel xam nga tey jii ce que le PASTEF dénonce la coalition portée par euh, par exemple par Bassirou Diomaye Faye. mais tey mais c' tout à fait normal que muy suscité inquiétude bi mel boo xamante ne bii maam je pense que ni on devait dépasser ça léegi nag pour revenir au parrainage. mooy gis nga parrainage toog Dakar mayewu ko. Hmm. non non non non sëñ bi man je pense que ni pour se faire parrainer da nga war a am ay mission à l'intérieur du pays avec des objectifs clairs nettement affichés. Hmm. mission yoo xamante ne bi dañuy toog dans les régions. suivant les objectifs mën nañ fa def vingt cinq jours dix jours quinze jours et cetera et cetera. Mm. loin des caméras. loin des caméras parce que gis nga man li ma jàpp man d'après mes mes informations man je pense que au-delà de cent mille parrains loo ci dolli da nga koy bokk gaay au-delà de cent au-delà de cent mille loo ci dolli da nga koy bokk ak gaay yi lu leer laa la wax donc faire une conférence de presse dire que j'ai deux cent mille parrains. yow jàppal ne say 115000 yëpp yàggaay yéen a koy bokk parce que nee naa la c'est le cercle militant convaincu moo koy def. kon ki waxoon ne 3000 parrain nag la. non mais attendez attendez quand même dañu waxante dëgg ba pare aussi tamit cela yi nga xamante ne bii ils viennent après les 10 premiers. Hmm. s'ils n'ont pas de militants convaincus. Hmm. mais Djibi Sarr nañ jàpp ne. presque lépp dañ leen koy rejeter. Hmm. y a des gens man on informé quelqu'un. boo xamante ne bii ou bien des gens yoo xamante ne bii à partir de 2500 parrain ils le vendaient entre 1 million 1 million 500. vendé jaay les gens achetaient des parrains man gis naa koo xamante ne bii euh, de manière volontaire dañ ko rejetel dañ ko rejetel 1187 doublon ek interne. 1187 moom 1187 moom mili moom moo def boole boolewaale ko ci ci clé bi. Mhm. et le le logiciel l'a rejeté. donc am na ci yoo xamante ne bii c'est des rejets qui sont tout à fait normaux. toutefois nag am na ñoo xamante ne bii voilà encore il faut continuer à. yóbboo CC mais naturellement dañ koy rejeter. alors naturellement donc. yóbboo CC mais naturellement dañ koy rejeter. alors naturellement donc Cheikh Ousmane Touré kon on a le droit euh, d'une manière très légitime douter wu ci parrainage yi ni muy doxe su ma déggee Cheikh euh, Mansour Cissé ak kii di Ousseynou Ly. waaw xam nga processus